bisimila mbokk internet yi dal leen ak jàmm ku doon laajte Faly Ngoye gi nii Fama Thioune mi kenn déggutul woon mujj naa génn yëkkee ay kàddu ca Instagram ba ginnaaw si nga xamante ne yàlla may na ko mu wasin ci jàmm ñaareelu doomam ju góor ay weere ngi nii animatrice bi lee di Fama Thioune kenn déggu ko ci réseaux sociaux yi del si waat na ginnaaw juddub doomam ju góor laataa muy noppi ba ñëpp di ko laajte yenn ci ay yéenekaay jotoon nañoo fësal xibaaru gu tas gu doxoon ci digganteem ak boroom këram di Matar Seck frère ci Kumba Gawlo Seck na am sax bokkoon na li tax ñëpp jàpp ne looloo am ca jamono jooju kile di Fama Thioune jotoon naa fësal ab da ca wax naan dooree si ki tey dee leen ma woowee sama sant Miss Thioune ginnaaw bi mu wasu ci jàmm Fama Thioune fësal na mbégte gu mu am ci juraata beneen yoon doom ju góor ba tax mu koy xamle fansam yi nga xamante ne nii ñoom ñoo koy topp di ko seetaan ci biir page Instagram am ja ca google nataal Fama Thioune toftal na ca ab bataaxal gu daw yaram jagleel ko doomam ju mujj ji ngir dalal ko nit ñuy dalalee doomi buur ñu teg leen ci kala kàllaamay koccu boobule bataaxal gu mu xaatim ci kàddub nasaraan Fama Thioune ne sori lool ci ay wayjuuram yegsi na ci biiri mbokkam mi ngi ci ndorteelu dundam moom meññanteef bu kenn werantewul ne mayu yàlla la gu bàyyeekoo ca kaw asamaan ak ci muuñam yu gën a taaru ci biiru yaayam lañ ko tàmbalee dundal ci mbëggeel yëngu-yëngu xolu ndey jaa ko doon aayoo ak a bégal ci diirub weer yu bari waaye bés bu jot dundam di tabaxu ci bànneex ba ci waxtu wi mu war a wàcc ci kaw suuf gane si na boobu judd na oh ndeysaan bànneex bu rafet bi nga ñu gëmloo amul dayoo ndoom su ndaw suñu ñeewantal judd na di lox dalal ak jàmm sama doom ju ndaw ju rafet ji kaay gaaw laxasu ci say loxoy yaay ñëwal jël sa guuxu soow yu njëkk ndax yeyoo nga ko lool lii la paama cuun na xaatim ca bataaxal ba waaye mi ngi ko jeexalee ay kàddu mbëggeel ba toxtal ca turupa xale bu góor bi mujj juddu we love you bébé Mamadou Chérif Seck bëgg nañ la lool yow sama doom Mamadou Chérif Seck ndeysaan yal na yàlla barkeel ko wéral ci kaw fan wu gudd yokk jàmm ak déggoo ci diggante ay waajuram Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal